ca Parcelles Assainies candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar daal dina amal génn politique bu njëkk ginnaaw ba ñu dàkkee jongante présidentielle ak ginnaaw ba ko parti démocratique sénégalais ji ñaay mbirum corruption jëm ci ay juge conseil constitutionnel donte loole yëpp am na premier ministre Amadou Ba di xamle ni mu ngi woy di jëm ci lu koy gañoloo jongante présidentielle yi ñu dëgmal. Je fais focus sur les élections et il en sera ainsi. tant que j'aurai la confiance du président Macky Sall sa confiance coow li ngeen di dégg yëpp pour moi daf ma gën a déterminé munoo am ambition wu jiite réew ngay am doxalinu lëg di yëngu rek lu xool ngay tourné déedéet Amadou Ba daal dina itam def ak wooteb jàmm mu di woote goo xam ni daal na ko jébbal bépp waay politique ngir ñu bokk ci dialogue national bi ñu woote. lii andi jàmm nag li ci jiitu mooy ñuy waxtaan mën nañu bañ a jubóo mais war ñoo bañ a toog waxtaan. loolu moo tax mois je répondrai à l' appel au dialogue du président Macky Sall wax il faut aussi que toute la classe politique nangu ñu dem toog waxtaan mu des dinañ jubóo wala duñ jubóo. ca geneen fànn premier ministre bi la daal dina nangu nii am na ñàkk a ñu nemmeeku ci biir mouvance la loolee tax ba muy wooye ñoñam ci ak mbooloo. dans le parti et dans la coalition. am nañu défi yu cohésion. koo xam ni waxtaan nañu wala waxtaanaguñu. koo xam ni mer nga wala meroo. nañu ñëw ñu ànd doon benn assurer la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar au premier tour. ba tax na candidat bii di Amadou Ba di sàkku ci responsable politique yu coalition Benno Bokk Yaakaar ngir ñu wàcc ci terrain bi fas yéene liggéey ngir jël raw gàddu gi ci njeexitalu élection présidentielle bi ñu dëgmaa la. la victoire. Benno la a portée de main bu dee dimanche bi pare nañu saa yu koñ ko jàppee pare nañu maleen di sant di leen gërëm